ee ko mu ñëw di leen ko tere ne laa tasarunna alihatakum wala tasarunna wuddan wala suwaan wala yaxuusa wa yaxuqa wa nasran ñooña bañ na ko lii daal fi lañ fekkoon suñ bàyyi suñ maam yi ñu koy jaamu yow mii la ñuy bàyyi waaye suñ istati duñ ko bàyyi mu sax ca loola ku gudd fan la woote ndax njëkk ñu koy yónni ñii ne ñeenti téeméeri at la amoon banañ ko yónni rek ñeen na ñeen a ñetti téeméeri at ak juróom benn fukk gannaaw biñ ko yónnee nag yonantoom ga rek sax na ca junnee at kon jàppal ne noox lim dund junnee at ak ñeenti téeméer yu teg dara moom la dund waaye li lay xamal yàgg deeg àdduna bi ñu ko laajee àdduna moom yow ni nga guddee fan nu mel mu ne àdduna àdduna moo gaaw man daal sama dund gi dafa mel ni am ñaari port ci ca beneen a gaawee kon nag néew fu ñu junnee at ak ñeenti téeméer noonu la adduna gaawee suñ suñ dund bi kenn xamul la lii la yonantu yàlla dund am fi Iraq la ñitu Iraq suñ ko doon fu toll actuellement ci àdduna yonent yàlla noox door a juddu foofa nag booba mu nekk te maanaam fukki seekal ak ñeent maanaam seekal bu njëkk ba ci li ko doree ci aadama ba ci noox seekal moo doon fukki at gannaaw si mooy téeméeri at téeméeri at bu nekk siècle lañ ko tudd moo tax yonent bi mos naa toog benn sahabi yu ñoo ne ko damaa bëgg nga ñaanal ma gudd fan yonent bi jël loxoom teg ko ca bopp ba ne ko ish qarnan fa aasha mi ata amin yàlla nga dund benn siècle koo dund téeméeri at su ko defee kon njëkk loola nag fukki at rek la moom lañ daan tuddee siècle ci diggante Adama ba ci noox noox moomu nag nitam ñu ko yónni woon ñoo ñi njëkk a samp istati ci àdduna di ko jaamu istati yi ngay gis seen cosaan nit ku baax la woon nitu yàlla ñu baax mën a jaamu yàlla génn adduna ñu jël seen jëmm ya yett ko samp ko ci seen xabru ya di leen ko fàttali fàttalikoo ba ñoo nga demee ba génn adduna xamatuñ li nekkoon seen gannaaw lañ doon def ñu mujj di ko jaamu kon loolu foofu la istati bàyyee ko mu ñëw di leen ko tere ne laa na alihatakum wala tasarunna wuddan wala suwaan wala yaxuusa wa yaxuuqa wa nasran ñooña bañ ne ko lii daal fi lañ fekkoon suñ bàyyi suñ maam yi ñu koy jaamu yow mii la ñuy bàyyi waaye suñ istati yi duñ ko bàyyi mu sax ca loola ku gudd fan la wootee ndax njëkk ñi koy yónni ñii ne ñeenti téeméeri at la amoon ba nañ ko yónni rek ñeen ngeen a ñetti téeméeri at ak juróom benn fukk gannaaw biñ ko yónnee nag yonantoom ga rek sax na ko junnee at kon jàppal ne noox lim dund junnee at ak ñeenti téeméer yu teg dara moom la dund waaye li lay xamal yàggadeeg àdduna biñ ko laajee àdduna moom yow ni nga guddee fan nu mel mu ne àdduna àdduna moo gaaw man daal sama dund gi dafa mel ni am ñaari port génnee ca beneen la gaawee kon nag néew yi fu ñu jëlee at ak ñeenti téeméer noonu la àdduna gaawee suñ suñ dund bi kenn xamul la lii la yonentu yàlla dudd am fi iraq suñ ko doon seen toll actuellement ci àdduna mu ما سلام يكشف الأسرار لي أبدا ويزب الأسرار لا سواي وسوى عيالي ويزب الحكام كالأقيال إلى سوى نحوي بلا لقاء ولا مدارات ذوي الشقاء على النبي ورسول العالم من لي يقود علم ما لم نعلم فجدنا محمد والآل وسعبي في والمال يا من كفاني كل ذي شقاء وكنت لي بالبشر والبقاء صلي صلاة تعلم الغيوب على الذي قد زازع الحيوب سجدنا محمد وسلمي ولا وسابي وعاصم قلمي يا من يقود لي من اللوح العجب يا قاهدا لي من نافع الرجب صلي صلاة قد سفر من اللغى على النبي الله نور البلغاء سجدنا محمد والآلي وصحبه في الآل والمال warfan loo bi kitaabati bila